gannaaw bi nu waree kaaba gi juróom-ñaari yoon julli ci gannaaw maqaam Ibrahim ñu ngi nii di dox incha allah fa seeni dem doxi safa ak marwa gannaaw bu nu naanee zam-zam ba noppi incha allah. leen ñëw leen ñëw leen. ilal masan incha allah ñu ngi fa seenee dem naan zam-zam après dox dem safa ak marwa incha gannaaw bi ñu waree kaaba gi ba noppi. di ñaan yàlla nangul nu nangul mbooleem xujaaji incha allah ngoog man ngeen delloo man ngeen delloo armali normal loxo yi man ngeen ko delloo normal tabaarakallaahu ñu ngi noonu di dox di dem ci fi ñuy doxee safa ak marwa xujaajaa ngi noonu bërëb bi nga xam ne danga daan war kaaba gi rek julli gannaaw maqaam ibrahim dem naan fa sam-sam daa mel ne foofu dañ ko dañoo toxal yañ fa daan teg ndax xam naa ci organisation bi ren bi ak bariwaayu nit ñi incha allah bu ñuy dox sam bu ñuy dox safa ak marwa am na bërëb yoo xam ne pour naan zam-zam la incha allah buñ fa yeggee rek baaxantal naan zam-zam bu ci yàlla àndee yeggale sunu wër kaaba gi yàlla na yàlla nangul. safa ak marwa fii ñu taxaw mooy safa li mooy xeer bi ngeen di gis nii mooy xeeru safa. ba ca topp bu ñu jëm mooy Marwa ñu ngi fas yéene ñu jàng lii may bëgg a bu ñu ñu tàmbali dox gi incha allah. bi nag naa ñu fa def. inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal bayta أو يأتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله به عليم أبدأ بما بدأ الله به فإن الله شاكر والله عليم إن شاء الله أبدأ بما بدأ الله به الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا من الإسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين حياكم الله tabaarakallaahu ajaay ak alaaji yaa ngi noonu ci ndoxu zamzam di naan tabaarakallah maa u zamzam ñu ngi noonu ku ne tànq di naan tabaarakallahu fii ci safa ak marwa ku naan ba pare da nga xajal keneen incha allah yeneen bi sallallahu alayhi ndox mi boo ko naanee loo ci yéene yàlla defal la ci yéene yàlla defal la ñu ñaan yàlla mu defal nu xam-xam bu barkeel defal nu wërsëg bu yaatu defal nu jaamu nangu defal nu njéggalu bàkkaar waaye saafaraal nu bépp jàngoro allahumma inni as'aluka ilman naafi'an wa rizqan waasi'an wa amalan متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli daa'i sunu boroom noo ngi lay ñaan nga maynu xam-xam bu barkeel ak wërsëg wu yaatu ak jaamu bu nangu ak saafara ci bépp jàngoro bismillah dox Safa ak Marwa noonu ba julli gee jot na ñu ngi julli gee incha allah ngir wéyal sunna Safa ak Marwa incha allah. allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'uuzu bika من النار وما قرب إليها من قول وعمل lii mooy bërëb bi nga xam ne boo fi yegsee da ngay daw ñëpp ko ci góor gis ngeen ñu ne di wut bismillah allahumma ighfir warham تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذابا ربي اغفر وارحم وتجاوب برعزة الحسن Thank you. mère Diarra en forme. ah. ah. ñëpp a ngi dëgg. ñëpp en ñu def ko 19 wala 7 yi doy na. ñaata la. bii mooy quatrième ah. ñaata ñu dese. incha allah yal nañu yàlla nangul. allahumma salli ala sayyidina wa nabina muhammad wa subhanallah wa bihamdihi ma alima min ma wa kafa sami'a allahu liman daa wa laysa wara allahi muntaha hasbiya allahu wa kafa sami'a allahu liman daa wa laysa wara allahi منتهى اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب

لمن دعا وليس وراء الله منتهى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي دنيا وعذاب الآخرة اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادر قبل نزولها اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت attawaabu arrahim yow sunu boroom noo ngi ñaan yàlla nga nu nangul yow sunu boroom noo ngi lay ñaan yàlla nga nu jégal mboolem bàkkaar buñ fi indaale yàlla nga ñu ko jégal mboolem bàkkaar buñ fi indaale yàlla nga ñu ko jéggal mboolem bàkkaar buñ fi indaale yàlla nga ñu ko jéggal mboolem xaajo buñ fi indaale yàlla nga ñu ko fajal yow sunu boroom yaa xam sunuy aajo te yaa ko mën a faj yal nga nu fajal sunuy xaajo yow sunu boroom yaa xam sunuy xaajo te yaa ko mën a faj te gën jaa rafetuk anam yal nga nu fajal sunuy xaajo yow sunu boroom xam nga sunuy jàngoro te mën nga koo faj yal nga nu fajal sunuy jàngoro yow sunu xam nga sunuy tawat man nga ko saafara yàlla nga nu saafaraal sunuy tawat jàngoroy yaram yi yàlla nga ko saafara jàngoroy xol yi yàlla nga ko saafara jàngoroy yaram yi yàlla nga nu ko saafaraal jàngoroy xol yi yàlla nga nu ko saafaraal mboolem lu nuy métti yàlla nga ko wéral saafara ko mboolem jàngoro bu nëbbu ak bu feeñ yàlla nga nu ko saafaraal yàlla nga nu fóotal sunuy xol yàlla nga nu laabalal sunuy xol solal ñu ci leeru ngëm yàlla solal ñu ci leeru wéetal yàlla solal ñu ci leer sellal sunu jaamu solal ñu ci leeru sellal sunu jaamu yaa nu digal ñu jaamu la te santuñu ñu selal ko yàlla nga nu wërsëgal ñu man di selal sunuy jaamu yàlla bu nu tayal ci jaamu yàlla yàlla bu tayal ci jaamu yàlla ña ngay wërsëgal waxtu julli du leen raw yàlla nañ ca bokk ña ngay wërsëgal ñu man di julli ca waxtu wa yàlla nañ ca bokk mbooleem farata bu ñu mës a julli yàlla nga ko nangu mbooleem naafila buñ mës a naafila yàlla nga nu ko nangul farata buñ na ma julliwaat yàlla nga nu ko nangul naafila buñ na ma naafilawaat yàlla nga nu ko nangul yàlla nga nu nangul sunu wër kaaba gi yàlla nga nu nangul sunu wër kaaba gi yàlla nga nu nangul sunu wër kaaba gi yàlla nga nangul sunu julli ca maqaama Ibrahim yàlla nga nu nangul suñu dox safa marwa yàlla nga nu nangul ndoxu zam-zam biñ fi ñaan biñ fi naan lépp lu ñu ñaan bañ koy naan yal nga nu ko nangul bañ ñëwee Medine suñu ziyaar yañ ziyaar yal nga nu ko nangul suñu ziyaar ya ca Uhud ak lañ fa ñaan yal nga nu ko nangul suñu ziyaar ya ca Baqiya ak lañ fa ñaan nga nu ko nangul suñu ziyaara ca masjid Quba ak lañ fa ñaan ak lañ fa julli yàlla nga nu ko nangul suñu ziyaara ca masjid xiblatayni lañ fa julli ak lañ fa ñaan yàlla nga nu ko nangul mboolem julli bu julli ca jumaa yonent ba sallallahu alayhi nga nu ko nangul mboolem ñaan bu ñaan ca jumaa yonent ak caraw raw du yenent ba nga nu ko nangul li des ci aj gi ñu namm ko jooxe ci dem ca arafa ca dem ca munna dem ca musdalifa yàlla nga nu ko yombalal yàlla bu kenn manqué yàlla nga nu wéral yàlla nga nu kàttanal ñu jooxe ko te nang ko bëggee te bu ko jooxee nga nangul nu ko la ca manqué nga tibb ci sa mat ga mottalil nu ko jéego yii nuy dox yàlla na remplacé jéego yi nu na ma dox ëllëg yowmal xiyaam yàlla bu ñu am fitnay bàmmeel yàlla bu nu am mbugalum bàmmeel yàlla nga nu musal ci fitnay bàmmeel yàlla nga nu musal ci mbugalum bàmmeel yàlla nga nu musal ci lëndamaayu bàmmeel yàlla na nu dugg àjjana yàlla nga nu musal ci safara yàlla nañ dugg àjjana yàlla nga nu musal ci safara yàlla nañ am sa ngërmande sa jaam ya lay gërëm nga gërëm leen yàlla nañ ca bokk sa jaam ya lay gërëm nga gërëm leen yàlla nañ ca bok sa jaam ya lay gërëm nga gërëm leen yàlla nañ ca bokk sa jaam ya lay gërëm nga gërëm leen yàlla nañ ca bokk def ñaan incha allah génn ñëw leen nii ñëw leen nii yeggal nañ dañuy tëj def ñaan sës leen ngeen bañ a baare ñiy tawaaf yàlla yàlla nangul yàlla bu mu doon suñ mujjug ziyaar yàlla bu mu doon suñ mujjug umra yàlla bu mu doon suñ mujjug aj ñu doon def tamato seen umra jeex na bu ñu génnee dañuy dem sangu balaa ñoo sangu dañuy watu bu ñu watoo dem sangu ñiy jigéen dañuy jël siso dagg rek seen catu kawar daal di sangu seen tamaton jeex na ñu xaar ba aj gi jot ñi doon def ifraat ak xiraan noonu la ñuy amul sanguwaat amul defaat yeneen incha allah yàlla nangu lépp da yàlla gërëm ko allahuma salli ala sayyidina muhammad alhamdulilah di sant yàlla bu baax def nañu sunu tawaaf ba noppi dox sunu safa ak marwa alhamdulilah yàlla ñu yàlla nangul ñu ngi nii di génn ci marwa di war a dellu sunu hôtel ànd ak alaaji yi ak uh, ujaa ji tabaarakallah yal na yàlla nangul nu yàlla bu mu doon sunu mujjug umra yàlla bum doon sunu mujjug tawaaf incha allahu taala ndokkale yal na yàlla nangu lépp yal yàlla gërëm jërë ngeen jëf yàlla mottali ñu li des may ñu wér kàttan incha allah barke alxuraanul karim barke barab yu sell yi yal na yàlla bég yal na yàlla kontaan amiin <laughs> yéen it yàlla fay leen sama maire yi maire jaara maire jaara ngoog <laughs> ah man tegoon naa tey da ngay jël pousse pousse ah doo nekk en forme ah bon yaa ngi ñu demaat ñu dem mëraat <laughs> macha allah mi ngi noonu yàlla yàlla mottali lépp incha allahu taala barke alquranul karim